oustaz ñu ñëw ci jamono ji nga xam ni ba léegi ñoo ngi ci toll euh, muy jamonoy couvre feu couvre feu euh, bi ba rek rek mu mel ni prolongation ba léegi mu ngi amaat mu mel ni tamit euh, gën a rek tempéré li nga xamante ni moo di xelu askan wi ndax jamono ji ni ñu koy waxee tam am na ñu ci bëree bëri xër-xër gi ba léegi xëy na dañu naan ba léegi moo ngi ci jamono diggante Ndakaaru kees ba léegi couvre feu bi moo ngi fi taxaw amaat na prolongation waaye toujours rek li ñuy wax rek ngir tempéré waat dëkk bi waaye di tempéré waat xelu askan wi oustaz Iran man bi ma coordinateur gàmm guddi na bi Thiès woowee. waaw. dama ko ne. tey leen. su docteur yi continuer feebar bi. arrêté leen gàmm waxtu jeexee ñu gàmm suñu gàmm. ñun corona yilifunu. Mm-hmm. yilifunu. nañ ñu may rek ñu liggéey nañ ñu may ñu liggéey sinon fañ jëm du baax su leen neexee nag nañ def couvre-feu mille ans ñoo xam dañoo aye ñoom moom seen lépp waaye yàllaa ngi ci kaw nag mm-hmm, mm-hmm. yàlla nee na ñu ngay tëral ay pexe ci suuf mais maa ngi tëral ay pexe ci kaw te pexe ma ci suuf maa ko moom moom bi ci kaw kon seen pexe sot du sotti dama ne ku fu na am mille ans wàññiwuñu dara du tee ñuy jaamu yàlla du tee ñuy julli du tee ñuy oor du tee ñu lekk du tee ñu naan bu dee jotee ñu dee na couvre-feu bi am mille ans sama yoon ci man li ma gëm daal gëmal yàlla wala nga bàyyi ko mais doxale sa diggante digganteeg yàlla ay feebar bu dee yàlla wàcce ko nga doxale ko sa digganteeg sa borom man yooyu wax duma ci wax man daal yàlla rek laa mën a gëm mm-hmm. ak dogala xam ne lu am mooma lu amul du moom mm-hmm. loolu laa gëm waaye yii ñuy def gawuma ko mm-hmm. voilà na leer kon nag ay couvre-feu man daal li ma bëggoon na bàyyi marché luuma yi marché luuma yi waaw nañ bàyyi luuma yi nit ñi liggéey baax na ci de guddi gi ñu yokk heure bi mm. ba 11h nit ñi jaay ah, Sénégal mu ngi perte lu bëri waaw mu ngi perte lu bëri ci guddi di ko perte ci bëccëg kon war nañ ci góorgóorlu. Mhm. waaw nañ ci góor góorgóorlu waaye quant à tëj Thiès euh, tëj dakaar sama nañ ci Sénégal <laughs> sama yoon nekku ci man gis nga yi nit ñi ne man yàlla rek. yàlla rek. yenent bi rek diine ji rek leneen lu waay ne ñoroom l'islam bi ne mun leen koo néewal doole. mën leen fexe ba wàññi jullit mën leen fexe ba duñ leen ëpp ci monde bi ñun li ñu doon ci jullit ci monde bi mu ëpp fuuf ci diine yépp nag mënu mm-hmm. leen ci dara bu leen neexee looloy sax su leen naqaree mooy sax yeneen bi moo fi ne tabarkalla ah. jàmm ji info mu bëgg a xibaar yu sell